danañ ak jàmm seen makkaanu première chaîne de télé privée bu Sénégal mbégte la ñuy am di leen euh, dalal gannaaw bi juróom-benn waxtu jotee euh, ba toftal euh, fanweeri simili ak ñett di waxtu bloc d'information bu rédaction première de télé privée bu Sénégal tey nag ñu fa yéene waxtaanee lu soxal lu ñeel wàllum sécurité alimentaire mu nekk nag ab ponk bu amaam solo bu nga xam ne nguur gi fi nekk daat nañ koy jël bëgg ko boole seen ay politique waaye fan la ñu mën ñeel wàllum agriculture ngir ñu mën a am sécurité alimentaire mu nekk waxtaan mu nga xam ne dinañ ci euh, daal di euh, dalal docteur Cheikh mbaw nekk directeur général bu centre suivi écologique docteur Mbow ñu ngi lay nuyu di lay dalal. maa lay nuyu di la fay Tambédou di nuyu sa naataango Cheikh. di hmm. nuyu seen téléspectateurs yi di leen jëfal ci invitation bi. jërëjëf ci biir waxtaan wi dinañ ci ànd ak sama naataango euh, Cheikh kebe Cheikh maa ngi lay nuyu. bu baax di nuyu suñu invité bi di ko wax dalal ak jàmm. comme niñ ko waxee tey ñu fa yéene waxtaanee ana yan politique la ñuy war a mën a teg ci mbirum mbay ngir am li nga xam ne moo di sécurité alimentaire. waaw doon na ab ponk bu am solo xam nga bay moom dafa am doole ci li nga xamante ni mooy yëkkati koom-koomu réew bu ñu nee mbay nag xel yëpp day dem ci wàllum suuf ñu gis ni Sénégal. suuf bi nañu koy jëfandikoo ci wàllu mbay lañu ca bëgg amagun ko tey ñu am koo xamante ne xam-xamam màcc na jëm ci wàllu wi ñu bëggoon ko laaj euh, Sénégal ci wàllum suuf li ñu jëfandikoo lan lañ ci mën a jàpp Euh, jërëjëf ci question bi Cheikh. Euh, mhm. liñ ci mën a jàpp dina jafe ñu tënk ko ci ñaari baat mais dina essayer jukki ci. Euh, mhm. ay ponk yu nga xam ne si xëy na dina dina éclairer ñi ñuy seetaan. Mhm. Sénégal dafa nekk ci endroit géographique bu nga xam si dafa xaw a privilégié. donc ñu ngi ci bassin bu mag bu ñuy wax bassin sénégalo-mauritanien nekkul territoire bu nga xam ne si dafa bëri ay montagnes mu am jafe-jafe ñu ngi koy bay comme yenn pays asiatiques yi nga xam dañuy def ay terrassement yu dul jeex. pour mën ko bay donc. dañu nekk ci zone bu nga xam ne si c'est des plaines surtout des plaines alluviales mooy fu nga xam ne si ndox dafay walangaan ndànk di fa diig ndànk ñu mën fa di fa bay en plus de cela suufu Sénégal bonul noonu li mhm. ñuy wax fertilité des sols amuñu contrainte mhm. boobu aussi Sénégal dafa bëri ay ressources en eau bu dul dex yi ñu am muy fleuve Sénégal fleuve Gambie bëri nañu ay ay marigots ak ay ay maar yow boo demee ci ferlo bi bu nawet bi jeexee mhm. day am zone yu nga xam si dañ ci dañuy bëri ndox main d'œuvre euh, bu yaatu bu nga xam si jeunesse bu bari mën nañu liggéey effectivement ci affaire agriculture donc li ñu mën a jàpp ci suuf si euh, par rapport à l'aménagement du territoire mooy le fait que Sénégal benn pàcc réew mi rek la ñuy bay yu ci bëri li ci des duñ ko bay presque un tiers Sénégal la ñuy bay boo xool li ñu wax bassin arachidier wala mhm. bassin agricole mhm. euh, à peu près sud Saint-Louis jëm ba côté Casamance avec les fleuves loolu la ñuy bay dafa bëri suuf yu bëri yu nga xam ne si ba mhm. nii Euh, defu ñu fa ay xeetu mbay yoo xam ne si mën nañu permettre mhm. ñu accélérer un peu l'agriculture mhm. euh, léegi ci biir loolu euh, suuf su façon mbay yi ñuy mbay dafay am lu muy yàq ci suuf si dañu wax mhm. la dégradation de la fertilité des terres loolu fokk ñu taxaw ci avec les changements climatiques yi nga xam ne si moom la ñu moom la ñuy souffrir depuis des années ñu xool naka la ñuy fexe lever li nasaxal mbay ba pare fexe li nga xam ne si moom mooy omal mbay ñu ñu def ci ay investissement pour mën a accélérer la sécurité alimentaire. Mhm. docteur Mbow wax nga ko am nañu euh, suuf su nga xam ne yaatu na mën nañ ci bay. Mhm. am nañu ndox mu nga xam ne mën nañ ko jëfandikoo gouvernement yi fi jàll yëpp am na ay politique yu nga xam ne teg nañ ko mais ba léegi ci wàllum sécurité sécurité alimentaire amuñu ci résultat lan moo waral li ni mel. bon amuñu ci résultat am na ay résultats yu ñu am euh, man pour man li ma gëmul personnellement mooy euh, le jeu de slogans mhm. euh, bu ñu jógee ci Gowana dem ci mhm. Rayava dem ci Prakkas di créer di créer ay dak nooyi bëri nañu boo xoolee li fi nekkoon ci politique et programme agricole depuis l'indépendance mhm. bëri na yu fi jaar te boo xoolee la ca biir la nga xam ne si moom mooy cëslaay ga la ñuy wax daanaka benn la pour bay foog nga am semence foog nga am tool bi mhm. foog suuf si baax foog nga am ndox foog nga am euh, mu nekk besoin euh, consommation population yi foog mu nekk besoin pour agro industrie bi pour ñu mën a def transformation mhm. foofu la mais li nga xam ne si moom mooy différence bi ci ci programme yëpp mooy naka lañ koy mettre en œuvre bu ñu waxee ni ndox mi mi ngi fii mais ndox mi naka lañ koy jëfandikoo. Mhm. suñ waxee ni Sénégal ñetti weer la ñuy béy juróom-ñeenti weer ñu toog di xoole. Mhm. alors que def nañu euh, pratiquement ce qu'on appelle la maîtrise de l'eau avec les barage sur les fleuves. Mm -hmm. même le fleuve Gambie am na benn barrage bu nga xam ne si bu bu yàgg lool léegi mu pare Sambangalu dinañ am une maîtrise. au moins sur ces fleuves là les nap gis nañ ko bon évidemment nap yi dafa commencer am xorom ci yu bëri à mhm. cause des changements climatiques mmh. pour man programme yi ce n'est pas sur les facteurs de production c'est sur la gouvernance de l'agriculture c'est sur l'investissement mooy maanaam koom bi nga xam si war nañ ko ci def ak fulaal gunu wala fulaal mhm. baykat mhm. le paysan ba léegi amul les investissement qu'il lui faut mhm. pour pouvoir avoir les semence avoir l'engrais et avoir le matériel agricole foofu la yëf yi nekk mais c'est pas dans la conception des programmes c'est dans l'action ci maanaam jug jëf foofu la yëf yi nekk waaw ci jëf jëf li ñuy jëfandikoo ak matériel yi ñuy utiliser hmm. mu mel dafa xaw des ndax boo demee ci yenn gox yi daanaka nañu daan bayee ba léegi noonu la ñuy béyee lan nga jàpp ni moom la ñu war a améliorer ci secteur boobu fexe ba ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu mbay mi ñu mën cee gis seen bopp euh, gis nga li ma remarqué ci euh, agriculture Sénégal mhm. mooy les méthodes agronomique yi nga xam ne si moo daan dindi garab yi di waaw waaw mhm. dañ ko importer mhm. dañu jël le systèmes agronomiques ni nday ni ñuy béye en Europe ñu bokk ko bayee fii du jàll. dañuy jël équipement tracteur yu mag yi nga xam ne si moom mooy doxal agriculture en Europe ba ko utiliser ci suñu tool yi ndax. dañuy xool semence par exemple gerte gi du du cosaan cosaanuwul Afrique feneen lañ ko jëlee indi ko. akaju feneen la cosaanoo ñu indi ko. donc le fait d'importer des solutions maanaam looy wut ci xeetu xam-xam jéggaani alors que li fi nekk ci xam-xam y compris xam-xam bi nga xam ne si communauté yi moom la yore ci y a agronome bu ma doon wax je suis agronome mais je aspirant paysan mhm. parce que ki nekk baykat moo la gën a xam fuuf mhm. lan meññeef moom mooy dox fii et cetera mhm. donc pour man le problème fondamental c'est de revenir sur l' agriculture particulièrement agriculture familiale jàppale ko fexe ba équipement yooyu mhm. mu adapté wu semence yi mu adapté wu ñu indil leen ndox indil leen tout ce qui facteur de production sur place mhm. nga gis da nga gis jàmbaar bu la mën a lu bëri lu weesu seen njort mhm. donc problème bi nekkul ci dem jëli ay solution ailleurs dem jéggaani ay solution ailleurs parce que jéggaani solution bi moo jéggaani looy dundee pour man c' est la même chose donc il maanaam li nga xam ne si moom mooy sababu population yi ci bay yi ñuy bay mooy ferñeent yu ñuy bay ñu gën a doole loolu parce que foofu moo am njeexital pour ñoom foofu lay oome pour ñoom mhm. ci loolu yaa ngi ko wax euh, sànq mu ñi nga ñi nga xam ne ñoo dëkk ci réew taax yi wax na ko mhm. ni ñu doon bayee la ñuy bayee ba léegi euh, engrais gi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo loolu peut-être di am ay jafe-jafe ci li nga xam ne moo di suuf si mhm. tey xam nañ ne changement climatique itam am na lu mu ci indi mu mel ni tey tamit ci réewum Sénégal dafa mel ni euh, bu nu bàyyee ba suuf ci yàqu rek ñu dem seetiwaat yeneen i suuf te xam nañ ni tey jafe-jafe boobu moo tax euh, ba réew yi tugali ñoo am ay jafe-jafe ba ñuy jéggaani lu bari ci li nga xam ne moom la ñu lekk tey itam ci wàllum restauration teer yi lan yi ñu jéego lañ ci war a def. alors question boobu lu am solo la. Mhm. pour man politique agricole pour Sénégal. balaa muy seeti suuf yu bees wuti ndox bu bees lii fi nekkoon ci suuf ak lii fi nekk ci ndox mhm. nañu fexe naka lañ koy utiliser. jëfandikoo jëfandikoo. Mhm. ba mu optimum. par exemple li nga wax ci engrais bi ma taxaw ci foofu. Mhm. suñu maam yi daawuñu bay ak engrais. Mhm. te seen suuf yi daawul yàqu. amoon nañu ay technique de rotation culturelle. Paul Pélissier benn xam-xam bu mag le paysan séeréer am na lu ci théoriser ci Sénégal te loolu ba léegi mi ngi fi ni nga fexee ba animaux yi ak agriculture bi mën a def alternance agroécologie lañ ko tudde léegi. mais dans la pratique africain yi yàgg nañ ko def. Euh, depuis très longtemps li bassin arachidier boo jugee Touba jëm euh, zone boobu Ténéfoul côté Diourbel bi et cetera kadd danaan la wax benn kadd ñetti mbaam ñi nekk fële au xam nañu lan mooy solos dimb mhm. daakal dimb gi sax bu ñuy bay da nga koy dégg dafay bokk ci seen vocabulaire mhm. lan mooy solos dimb ci fertiliser sol. donc ñun bu ñu demee bàyyi yooyu di wuti engrais tout court engrais bi du la permettre nga am tout la fertilité parce que boo amee sol bu dégradé wu complètement mhm. boo ci doon def ay tonnes engrais tamit du dox donc mhm. il faut que ñu revenir ci pratique yooyu nga xam ne si moom la ñu amoon ci suñu réew gën a mhm. dooleel pratique yooyu euh, fexe ba semence yi gën a adapté wu plutôt di wuti ay terres yu bees donc li na saxal agriculture li nga wax changement climatique ci la bokk. Mhm. le profil saisonnier dafa changer. Mhm. dafay am lu ñuy wax des pauses pluviométriques en début de saison des pluies yàgg nañu mu taw. Mhm. ñu ji taw ba arrêté. ñu demaat wutiwaat dañ la ñu wuti euh, jiw ba ñetti yoon ci at mi mm-hmm. mais loolu xaalis la ak énergie da nga gis ku nga xam si day mujj bàyyi dem mm-hmm. yoonam donc bu nu maîtriser wul comment les changements climatiques se manifestent et puis des pauses pluviométriques maanaam mu dem ba digg ci digg saison bi mm-hmm. ñuy xaar taw pour ñoral taw bi arrêté bu heure bi muy ñëw fekk la fa jotoon a ñor ñu war ko deqi mu ñëw yàq ko léeg-léeg ñu demoon ba deqi bay weer pour mm-hmm. wowal suñu gerte. Mm-hmm. mu ñëw taw ci kawam. Mm-hmm. dal na fi ay population ba ñu continuer de truc. donc changement climatique bi daf ci am ay njeexital pour man agriculture Sénégal balaa ñu dem di wuti suuf yi bees nañu xool suuf yi nga xam ne si xorom si daf koo nangu. surtout la zone des Niayes. ba ginnaaw Lompoul jëm côté euh, euh, Saint-Louis. dans le dans la région de Fatick. et particulièrement aussi en Casamance ñu xool terre salée yooyu naka lañ koy récupérer parce que boo récupérer terre salaire yi. salé yi c'est des centaines de milliers d'hectares yoo xam ne si mën nga ko récupérer pour de l'agriculture parce que suuf yooyu dafa am fertilité dafa am matière organique bu bëri mhm. CSE centre de suivi écologique mhm. utiliser na ay jumtukaayam pour mën a liggéey dans la zone de Fatick dans un projet fonds vert climat mhm. pour restaurer les terres salées loolu rek programme la bu nga xam ne si lim lay jural ci euh, njeexital ci sécurité alimentaire dafa defee estimation à FAO ñu ne 30 pour cent li ñuy bay ci pays tropicaux yi. Mhm. dañ koy perte parce que amuñu ay jumtukaay pour denc ko. Mhm. mais loolu boo ko réglé. déficit alimentaire bi dina ko régler de plusieurs facteurs mhm. pratiquement tout le tout le déficit alimentaire mën nañ ko régler ci la gestion des pertes post récolte maanaam bay ba pare mu yàqu loolu buñ ko lijjantee wut ay zone de stockage et puis des zones de transformation lu ci bëri ci problème sécurité alimentaire bi ñuy wax dinañ a lijjanti waaw dañu gis ni kenn ku ci nekk am na loo jéem mhm. bu weesu mooy président Macky Sall tegoon na ay banqaas ku ci mel ne SAES SODAGRI ngir euh, xeex lu jëm fexe ba nit ñi di mhm. bay lu ñu dundee mhm. waaye mu mel ni dafa am ak lajjuteef gu ci am lan nga jàpp ni moom moo waral li ni mel ak yan solution la war teg ngir li nga xamante ni créé nañ ko mën a am ak njeexital wax dëgg yàlla man li ma jàpp mooy Sodagré ak Saïd ay jàmbaar dëgg lañu. ay jàmbaar lañu. Euh, ci condition yi nga xam ne si moom lañ leen di liggéeyloo ci sécurité alimentaire. Mhm. Euh, boo jotul investissement yi nga war a jot yëpp pour mën a aménager li nga war a aménager jox ko ay nit ñu bay. Mhm. dina jafe lool nga mën a atteindre objectif yi. Mhm. mais boo xoolee fa ñu jógee depuis les l'après barrage ba ñu defaree barrage yi ba léegi. ak fi ñu yegg si nii am na ay jéego yu mag mais doyut. Euh, doyul parce que effectivement boo xoolee région fleuve Sénégal mhm. Sayet te suuf yi muy gën a exploité c' entre Saint-Louis et Podor à peu près mhm. euh, foofu la ngay gis tool yu mag yi aménagement yi yu mag yi mais bu jugee foofu ba jëm ba côté Ourossogui yi li nga fay gis ci ay aménagement bariwul donc potentiel bi ñu am mhm. pour mën a aménager des terres indiwaat des centaines de milliers d' hectares de mhm. production de riz xëy na loolu buñ leen joxoon ay moyens ba ñu mën ko dab dabal mhm. lii ñuy jéggaani ci ceeb mhm. un million deux cent euh, mille tonnes yi ñuy jéggaani ci ceeb daan ko mën a jege au moins bu ko defee li ñuy jéggaani du bëri mhm. te jéggaani boobu dafa am lu muy am njeexital ci suñu économie donc Sodagri c'est la même chose ku nekk xam na ni bassin Anambé mhm. mais dafa suuf sa dafa baax et puis mhm. non seulement day taw mais pare mu am fleuve fleuve Casamance di ko irriguer et cetera donc amul dara lu nga xam ne si mën na leen a tënk kon léegi lan mooy problème bi bi pour man c'est d'abord l'investissement euh, mooy jël xaalis bu nga xam ne si war na mën a permettre population yi mën a ñoom am seen i casier organisé wu en coopérative. Mhm. liggéey ci euh, biir euh, casier yooyu wut ceeb mën ko jaay. Mhm. parce que kilo ceeb ku ne xam na li muy jar. Mhm. un million deux cent mille tonnes. multiplié ko par kilo ceeb c' est au moins de trente milliards c' beaucoup d' xaalis bu dul jeex la. nga fexe ba population yi mën a am ci casier yooyu ñu jox leen doole. ñu mën a liggéey pour mën a produire ceeb di ko jaay ci réew parce que ceeb fii lu ñu bay ci Sénégal ceeb. nit ñi dinañ ko ñooñu soxla seen ceeb daal di koy mhm, tey donc risque souveraineté alimentaire c'est cette dépendance mhm. bu ñu mënoon a inverser dépendance boobu organiser ko de sorte que Sodagri ak SAED comme ni ñu koy defee avec les communautés mhm. ñu dooleel ko ba nit ñëpp mën a sumboondoo ci liggéey bi loolu peut dina dina gën yëf yi mais encore une fois dafay laaj ñu xoolaat taxawaay bi di ñuy def fulaale yeneen secteurs yi ñu fulaale ko agriculture tant loolu defuñu ko dina engrais dafa nekk ponk bu am solo. te tëpp ñëpp xam nañu ci réewum Sénégal ICS ma fi nekk muy def engrais. Mm-hmm. am na agriculteur sax yu nga xam ne ñoom li ñu jàpp mooy euh, engrais yi leen di jox. Mm-hmm. bokkul ak engrais yi nga xam ne moom la ICS di yóbbu di ko exporte est-ce que tey jotul euh, nguurug Sénégal xoolaat ICS. moomal mm-hmm. ko boppam. est-ce que tey réew mu nga xam ne dafa bëgg sécurité alimentaire mm-hmm. Mm-hmm. dina jël usine bi nga xamante ne entreprise bi nga xamante ne mooy defar engrais mm-hmm. moom ko ah loolu nag c'est une question politique <laughs> euh, man dinaa wax ci question scientifique bi euh, mooy gisuma pays bu nga xam ne si mën na produire engrais jël engrais jox ko keneen ba pare dem jéggaani lu mu dundee loolu man gisuma dëkk bu nga xam ne si am na lu mu bëggal as ma particulièrement baykat yi mhm. mais di doxale noonu mhm. te engrais ICS bi benn façon engrais la am ammoniac bi nga xam ne si ñu ngi koy xaar ci pétrole bi mhm. dinañu permettre ñu produire urée li taxoon suñu kilifa yi demoon ba Ukraine di ko jéggaani war nañ ko mën a def mais li ci gën a am importance mooy boo amee lu mel ni phosphate nga mën a produire engrais fexeel laax lekk soo ko naax jaay mhm. fii li li nga xam ne si mooy suñu besoin en engrais ñun mhm. bëri boo mhm. xoolee popula dix huit millions dix huit millions ñi ciy bay boo jëlee dix millions yi ci la ñu tool boo xoolee Sénégal li muy yaatu yaatu cent quatre vingt douze mille xaw ma kilomètres bu ñu bayoon lépp ak li ñu am phosphate fii euh, Taïba am ko phosphate Matam bu ñu góorgóorloo tuuti ubbi lu mel ni yu mel ni ICS ñu ubbi ci yeneen parce que waa Maroc réussir nañ ko. Mhm. OCS. Mhm. waruñu toog rek di xaar waruñu toog rek di xaar. Mhm. il faut que ñu créer des systèmes yu nga xam si dañuy produire te engrais. amul fenn foo koy defar. ba pare nit ñi duñ ko soxla ba pare di ko mën a jaay donc pour man le fait de se sax ci benn ICS sax pour man c' est d' abord là le problème. pourquoi mënuñu am ñett ñeenti ICS. yoo xam ne si dañuy defar engrais. Euh, état bi subventionné ko moi pas peur de le dire. boo lekkee e ba suur da régler non seulement souveraineté sécurité alimentaire mhm. yeneen sécurité da koy lekk da koy régler mhm. Mhm. parce que boo amul sécurité alimentaire yeneen sécurité yëpp dafay xaw naxasal boo amee sécurité alimentaire aussi muy le secteur primaire di mën a dooleel secteur secondaire muy secteur de transformation agro business ak yu noonu donc engrais bi li ci wax lu am importance a noonu il faut que ñu am ci taxaw seetlu pour xool agro business ci boppam. ndax jotul tey jii comme que réew yu bari développé nañu te ci la ñu jaar ñu amaat ci beneen taxawaay surtout ñi nga xamante ni yëngu ci wàllum exploitation bi ñu bàyyi leen buntu ngir ñu yëngu bu baax a baax ci li nga xamante mooy agro business bi mm. parce que am na ñoo xamante jafe-jafe rek lañ ciy dund amuñu les moyens qu'il ngir mën a dem ci étape boobu noonu tout à fait alors agro business nag dafa xaw a yaatu mais ñi muy gën a soxal mooy le secteur privé mm-hmm. euh, dafa am ay pàcc agro business ci ñoo yëngu rek ci ceeb bi rek taxaw. voilà <laughs> ceeb bi sax sécurité alimentaire avec une benn benn spéculation. Mm-hmm. loolu sécurité alimentaire day laaj équilibre. Mm-hmm. préférence nutritionnelle demande voilà c'est ça. pour mm-hmm. boo boo bëggee lekk yi nga soxla pour. defar sa sa ceeb par exemple bon yooyu yëpp nga mën ko <laughs> béy quoi. voilà mu jóge ci ñaay bi ceeb bi jóge fële yàpp bi jóge fii meew bi jóge fële ainsi de suite. c'est la diversité qui l'équilibre donc sécurité alimentaire foofu donc agro business pour man dafa am ñaari aspect yu nga xam ne si war nañ ko xool mm-hmm. bu ñu jëlee agro business en pensant que dañuy investir ci agriculture pour dem jaay pour am xaalis yàgg nañu jaay pour am xaalis am mm-hmm. xaalis te mënuñu fajal suñu problème mu nourriture mm-hmm. pour man première agriculture bi mooy agriculture bi lay permettre nga régler sa problème euh, nutritionnel mooy nga dundee euh, euh, ku mel ne Burkina Faso par exemple li mooy dugub ak yooyu. Mhm. ñoom presque atteindre nañu seen seen seen sécurité alimentaire. Mhm. mais Sénégal ba léegi même dugub da koy importer. Mhm. même dugub day am benn moment day jóge Niger wala yeneen pays pour kii ko donc politique agricole bi foog mu taxaw. ci agro business bu nga xam ne si le vivrier marchand. mooy li nga xam si la nit ñi di dundee. di ko jaay ci marché yi. loolu dañ ci bañ a xool toujours jéggaane di yóbbu ay Europe leen ay ñu ñëw def seen. dem di jëndi rek. voilà dem di jëndi alors mais deuxième aspect bi c'est l'aspect transformationnel. Euh, lu mel ni Fogno par exemple pour man exister wul dans aucune politique agricole au Sénégal te ku ne xam na ni foño moo gën foofu yenn lekk yi ñuy jëndee en Europe te fii la cosaanoo era grostis de tudd en truc fii lay saxee mais bu ñu amoon politique yoo nga xam ne si dafay fulaalaal euh, genre mbay yooyu euh, yenn meññeef yi nga xam ne si fii mooy fekk ca benn façon ñebbe bi nga xam si ñu ngi koy béyee à Louga am si partout dans le monde nit ñaa ngi koy wut parce que dafa bëri protéine mm-hmm. ñu fulaal ko def ci ba nga xam si dafay nekk suñu marque de fabrique fabrique ci affaire agriculture pour man agro industrie mhm. agro business mhm. war na mën a xool loolu mbay ñu bañ a xool juste les produits horticoles mhm. euh, yi nga xam ne si dañ koy yóbbu en Europe di ko jaay dans les supermarchés mais ku xam agro business ou un secteur privé bu ngeen ko invité dina ci mën a gën a xuus ci loolu docteur wax nga ci wàllum transformation euh, wax nga ci wàllu matériel bu nga xam ne war nañ ko mën a jox ñi nga xam ne ñoo di baykat yi ngir ñoom seenu mbay dëppoo ak li nga xam ne moo di jamono waaye itam jamono ji dox ba ñuy wax agriculture intelligente. Mm-hmm. loolu lan lañ ci mën a jàpp. alors loolu nag da ma permettre ma ma dudd sama centre <laughs> euh, centre de suivi écologique <laughs> mhm. euh, euh, fan yi passé académie des sciences muy kàngam yooyu nga xam ne si dañu xalaatal réew mi di def mhm. prospective di xool fu réew mi jëm di ci indi ay xam-xam war nañ ma ci ma def ci waxtaan ak ñoom mhm. alors dama ni question yi ngeen di posé yu ci bëri dafay laaj xam-xam dafay laaj instrument de mesure dafay laaj nga mën a xayma suuf yi fu mu toll suuf yi yàqu yi fan la nekk climat bi nu muy changé Euh, ndox mi fan la nekk bu ñu ko doon utiliser lan mooy euh, passif yi lan mooy li ñu mën a optimiser ci ressources yi mhm. agriculture intelligente dafay utiliser xarala yu bees yi Euh, pour mën la permettre nga am semence bi nga xam ne si moom moo adéquat par rapport parce que jël gerte rek mënoo ko bay par n'importe où mhm. euh, tubaab yi mënuñu bay mango parce que seen mhm. écosystème mayu leen ko ñun mënuñu bay pomme parce que suñu écosystème mayuñu ko mais pour pouvoir identifier potentiel bi nga xam ne si moom la Sénégal am surtout le calendrier agricole mhm. kañ la ñu war a dugal dugub ci suuf kañ la ñu war a deqi bu ñu deqee lan lañ ciy def chaîne de valeur bi yëpp mën nañ ci dugal xarale yu bees yi de sorte que dañuy accélérer euh, la performance de l'agriculture mm-hmm. agriculture intelligente dina la permettre nga utiliser de l'énergie propre dina la permettre nga optimiser les ressources en eau dina la permettre nga cibler la dosage des fertilisants parce que engrais NPK bi ñuy joxe. Mm-hmm. du suuf yëpp soxla P wala K bi. Mm-hmm. bi rek la ñuy soxla. mais foog nga xam ni fii soxlawul NPK N la soxla. ñu jël ko jël ko jox ko nitro euh, azot bi. pour agriculture bi dox bay soxla phosphore bi soxla potassium. Mhm. mais boo ko bàyyee noonu rek di tibb engrais di sotti. Mhm. mën nga mën nga omble. Mhm. mais doo am résultat yi nga bëgg donc agriculture intelligente. daf lay permettre nga accélérer la productivité. ba pare réduire. sa consommation d'intrants donc loolu bu ñu ko defee investissement yi ñu ciy def dinañu mën a permettre ñu atteindre un peu l'accélération de la productivité au Sénégal xanaa un petit commentaire par rapport ak li nga xam ni moo yëm ci main d'œuvre bi mhm. lan lañ ci mën a wax ak surtout ñi nga xamante ni ñoo fi toog régime bu bees bi yan kàddu nga leen di dénk encore une fois partie scientifique bi dinaa ko <laughs> répondre voilà ah, surtout par rapport surtout main d'œuvre parce que tey <laughs> mm. euh, yàgg nañu gis ñu ngi joxe mm-hmm. ay tracteurs ñu ngi def ay engins mais tey est-ce que euh, Sénégal am na ay doomu réew yu mhm. nga xamante ne nii mënees nañoo jëfandikoo lu nu mel parce que léeg-léeg nga dégg yenn agriculteurs yi ne ay ay euh, ñii di dawal ay taxi wala yenn oto yi la ñuy jël di leen jox loolu alors que loolu dafa nekk qualification la bu nga xam ne il faut que ñu jàngi ko alors mécanisation agricole et main d'œuvre mhm. boobu dafa nekk lu nga xam ne si ñun def nañ ci ay gëstu euh, dañu xool itinéraire historique yi nga xam ne si par exemple Europe am na ko balaa ñu def seen mécanisation mhm. li ñuy wax transition démographique ñoom demoon nañu am industrie dans les villes yu permettre ñu jóge woon ci àll bi bu ñu ñëwee mën a am liggéey ci ville yi ñu mécaniser agriculture bi pour autonomiser mhm. un peu la production agricole mhm. fii Sénégal amuñu problème de main d'œuvre mais mais du ñëpp a mën a nekk baykat mhm. du ñëpp a war a nekk baykat on ne pas prendre toute la jeunesse du Sénégal. def leen ay béykat loolu. man man ci loolu. <laughs> par contre ñi nga xam ne si seen vocation la mu nekk lu nga xam ne si mën nañ ci wut liggéey am fu ñu amee distracteur mhm. war réduire nañu ñi fa waroon a liggéey ak seen doole. Mhm. réduire nañ ko d'autant de personnes. Mhm. donc il faut voir l'équilibre. Mhm. est-ce que ñëpp la bëgg ñëw ñu def utiliser seen doole pour béy wala dañu bëgg a mécaniser mais mécanisation mënul ñàkk ci agriculture surtout bu ñu bëggee nekk. exportateur net plutôt que nekk importateur net de nourriture. donc mais mécanisation boobu il faut pas le faire n'importe comment ce qui ce qu'on appelle la dépendance technologique. et pa euh, sur ce plan là am na dëkk yu ñu wan yoon bi lu mel ni Inde dem nañ ba jël seen tricycle yi adapté mm-hmm. ko ba mu nekk ay mm-hmm. tracteur mm-hmm. euh, seen faucheurs yi am na nu ñu ko def au lieu que mu nekk ay jaasi ak ay ngoos ngoos mu nekk ay yu nga xam ne si avec de l' énergie solaire ou bien du diesel bu simple ñun de gopp la ñuy béyee dëkk ba ak mais justement mais justement moi je suis origine moi je suis de Louga ba léegi la ñuy béyee depuis suma maam yi mais loolu fokk ñun ñu ñu ñu ñu jombal ko suñu bopp xam ni toll nañ fu nga xam ne si ci développement réew yi hmm. ak ci xarale parce que université yu ñu am il faut que ñu fulaal leen y a hmm. beaucoup d'innovation hmm. yu ngiy def ci agriculture ay décortiqueuse par ici ay machine agricole par là mais doo gis ku ci def fula foofu la privé bi di ñëwee def ci fula pour que euh, euh, matériel boobu ñu multiplier ko Sismar amoon na fi mais xaw ma ndax ñi ngi liggéey ba léegi école polytechnique bu Dakar toujours ñu ñu créer ay innovation mais foofu la yem donc man pour mooy euh, bu ñuy def mécanisation. Mm-hmm. bu ñuy def équipement agricole. Mm-hmm. ñu xool équipement yi nga xam ne si moom moo adapté wu. ci mm-hmm. suñu agriculture. ñu former ci jeunes yi. ba pare créer benn industrie parce que bu demee ba baax mën nga ko jaay ci yeneen réew. ñu ni ñuy demee di jënd yeneen équipement mën nañu dem ba suñu équipement ñu koy jaay ci yeneen réew. donc question bu xaw a difficile la. et donc foofu pour daaneel ci question boobu. loolu dafay tax ak lii ñu waxtaan yëpp. Euh, politique agricole nekkul lu nga xam ne si dafa yomb. nekkul lu nga xam ne si euh, wax benn kàddu ni euh, mu am rek mu am. Mm-hmm. loolu dafa jafe ci politique agricole. Mm-hmm. lu ñuy waxtaane la lu ñuy teste la. lu ñuy lu ñuy lu ñuy diisoo la ak paysans yi. Mhm. doo ko jël rek jëlee ko ci suñu bureau yi. Mhm. indi ko amul kenn ku ñu ku gën a xam agriculture que nekk fële. la l'agriculteur au cœur de des mhm. loolu bu ñu ko defee. la politique agricole je pense que dina am <laughs> transformation bu rëy bu mu indi mel ni euh, waxtaan wi xoj nañu ñu ngi waajal li nga xam ne euh, moo di xibaar yi juróom-ñaari waxtu di euh, fàttali suñu téléspectateurs yi nga xam ne dañu daal di dàpp li nga xam ne moo di waxtaan wi nag mu nekkoon waxtaan waa solo solo bu nga xam ne ñu ngi ko rek daal di euh, jagleloon lu ñeel wàllum sécurité alimentaire yan i pexe la ñuy teg ci lu ñeel wàllum mbay mi ba am li nga xam ne moo di sécurité alimentaire mu nekk waxtaan itam bu nga xam ne euh, ñu ngi ko doon ñu ngi ci doon euh, dalal docteur Cheikh Mbow nekk nag directeur général centre suivi écologique docteur ñu ngi lay gërëm di la sant. maa ngi lay gërëm di la sant Tambédou Cheikh maa ngi lay gërëm jërëjëf jërë ngeen jëf jërëjëf. naa ni ñaar di ngeen mën a yeggali waxtaan wi. Mm-hmm. ci juróom-ñaari waxtu ñu daal dikkaat ak yéen ci xibaar léegi léeg lay doon.